ñun loolu dérangé wu ñun làmb dafa bëre dafa nekk si ñun waaw bu ñu toogoon nii nii boo ñu yeewee waaw ñu bëre loolu sant bu baax waaw di sant supporters yi di sant président supporter bi ku ci xam nga yaa ngi jàppale kii maa ngi lay bëggee waaw waa jàppal ma jàpp leen di bëggee eh, eh, gis nañ gis nañ gis nañ bébé jël ak Serigne Ndiaye tey ñëw ci bés bi tey waaw ñoom ñooñu ñooñu man maay ñoom man ñoom ñoo bokk benn objectif bu ñuy wër mooy dugal fii làmb inshallah